salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum yéen ñi safoo di seetaan Étoile TV Sénégal tey nag comme ni ngeen ñu xamee ñu ngi fii ci complexe bi comme ni ngeen ko gisee nii mu yanj nii ngeen gis ci suñu invité yu yanj yi ak concert bi ni mu nar a demee xam nga ni ku gis lii xam ne war dafa war a neex Aba Gawlo moo koy organiser nag mu nekk anniversaire am mu war a nekk lu rëy a rëy ndax du kooku da di doomu Gawlo man nee naa ko yow loo wayul neexul loo sàjjul lekk baaxul ñu leen di bàyyi nag euh, ñu xaar tuuti. invité yi daal di ñëw ñu dalal leen waxtaan ak ñoom lu ñu xam ci Aba Gawlo seen ceex na Detour TV comme ni ngeen ko tàmm gisee ak ñun xanaa ñu dalal suñu première invité daal koy laaj moom la kan mu daal di nuyoo ak internet bi Étoile TV bi sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaye ñoo ngi lay fay bu ba soxna si. maa ngi lay bàyyi nga nuyoo ko internet Étoile TV ñi seetaan. waaw vraiment ñu ngi nuyu suñu mbokki internet yëpp vraiment di rafetlu taxawaay bi di rafetlu taxawaay bi ngeen taxaw di jàllale nga xam ne lu am solo la bisu Babacar bi. wa vraiment ñu nekkon tamit euh artiste mu invité nu ñu war fi ñëw jàppale ko ci bisam bi doon lo xamni ñun ñoo bokk ci awon bo a war yaatal mu doon lo acte bu rafet la acte bu nice la bo xamni ne dañ koy rafetlu daal. maa ngi dégg sa biir yi wax nga naan eh, artiste nga no tuddu ak eh, fan nga dëkk exactement. wa man ma ngi dëkk ci awon euh di musicien vraiment tuddu Mourou Baye Fall sama groupe tuddu Dëgg ji family waaw mu doon eh, groupe bo xamni ne ñu ngi yëngu ci musique di ci bay sunu war bu baaxa baaxa baax amul lu ci awon tamit bëgg ci jàpp. mu gën a yaatu ndax sunu mbokk artiste bu xewlee dañu war a mën a yaatal ko mu gën a yaatu daal. amuñu lu dul Tivaouane wax nga ko sànq nga ni musicien nga euh, lan ngay waajal ñi nga xam ne parce que fii nii Tivaouane instant bi artistes yëpp ku yaa ngi wane sa bopp lan ngeen di waajal waa Tivaouane. waa Tivaouane ñu ngi fi liggéey comme boo gisee tey ji liggéey bi yeex sax mooy coronavirus bi fi jaar mais yàgg nañ liggéey def nañ ay vidéo yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon def mais tey ji ñu ngi waajal album boo xam ne bu am solo lay doon. mais ñu tamit ñu ngi waajal tamit single boo xam dañ koy nuyoo ba pare ñu ngi préparé deuxième jour tabaski loo xam ne lu rëy la ñu def ko Tivaouane concert bu rëy boo xam te ni euh, Tivaouane gi yëpp dinañ xam kan mooy Modou Baye Fall dëgg ci famille ñu xam ko bu baax a xanaa ñu xaar loolu noonu rek deuxième jour tabaski ñu bàyyi la nga wax sa kàddu gu mujj ak lan ngay wax Aba Gallo lan nga koy conseiller. waaw vraiment sama kàddu gu mooy mooy vraiment remercier engagement bi. ak tamit euh, li nga xam ni tamit ni ngeen di def yeen tamit yeen suite bi nga xam da ngeen di jàllale euh, Tiwaawan ndax ñun li ñuy waxe moy tiawon lan am lu fu nu dem fu nu sori sori dañuy ñew fanaan si Tiwaawan te tamit buñu sañon tiawon yaatu ñu jàpp ci te tamit li ni dafa bari lu muy am dafa wara bari lu muy am dafa bari ñun tamit autorité yi ak ñi nga xam ni tamit euh, war nañu lañu japp jàppale ñun jeune talent yi ak jeune artiste yi nga xam ne yëngu ci musique ñu japp lañu gëna a yaatu Babacar da koy encourager bu baax ndax jeune la bo xam ne dafa bëgg gëm bopam am talent ba pare ba di ko waré ndax lii lépp ku koy organiser tamit lu am loo xam te ne lu am solo loo xam te gën a yaatal sa bopp te nit ki am na fu toll foo xam yaa yaa a wane sa bopp bul xaar kenn sa bopp da ngay wane sa bopp bu dee nga waaw am na fooy toll foo xam tamit nit ñi da lay fekk si mais bul xaar ku la fekk si yow waneel sa bopp doo ko mën a wane te tamit vraiment di ko wax bonne continuation quoi vraiment di leen bëggee di leen kontaane bu baax yéen ak ah, kon euh, Aba kon yaa déggandoo bonne continuation xanaa ñu bàyyi la rek euh, nga demaat ci tey na xam naa ne fii mu ngi doon neex. waaw vraiment mu ngi doon leen jaajëfal yéen tamit di leen encouragé bu baax ba tamit pare nan pour ñu liggéey bu ñuy liggéey ëllëg tamit ñu ànd ak yéen ndax yéen vraiment yéen a ngi di jàppale Tivaouane suñu Tivaouane di wane li ñu seen fay daal vraiment yéen tamit di leen encouragé bu baax a baax a baax fi ngeen jàpp foofu la daal maa ngi lay remercier bu baax. ok di leen jaajëfal bu baax a baax. ok merci beaucoup nii lay demee nii lay demee plateau bi tey dafa nar a yànj Abba Gawlo moo xewle nee naa ko sànq xale bi lu mu wayul baaxul man bëgguma lu mu wayul. suñu deuxième invité kii nag yaakaar naa ñëpp xam nañ ko muy tudd Adama Ndiaye Mister Do nekk manager ki nga xam ni waykat bi nga xam ni kooku tamit nee naa ko lu mu sàjjul lekk baaxul lu mu wayul bëgguma ma daal koy dalal wax ko mu nuyoo ak euh, mbokki internet bi ñuy seetaan à travers Étoile TV maa ngi lay nuyu Mister Do. maa lay fay soxna su baax si di la siyaar di la jox sa wàccuwaay di nuyu sunu seen bu am doole bi ñuy ñaan mu doon ay télé télé muy étoile TV di leen bëggee di leen wax ndaka seen guddi yéen bala ngeen ma laaj ndaka seen guddi. ah ñun boo xoolee rek xam ne suñu guddi lépp jàmm. waaw kon baax na xam ñu doxantu rek def doxantu musical waaw bu loolu weesoo ñu bëgg laa laaj naka liggéey ak euh, manager bi nga nekk di ko nekkal Pape Badara nan la liggéey bi di demee foofu. waaw Padu sama artiste la waaye ñoo liggéey ndax man wax dëgg yàlla ñoom laa fi nekkal artiste yi nekk képp koo xam ne artiste nga nekk Tivaouane man maa ngi nekk sawet wet ci côté yëpp Padu nag moo liggéey te moo ngi waaj loo xam ni incha allah bu ñëwee xel dina daal. Badou mu ngi liggéey te mu ngi waaj loo xam ne wax ñun ndax euh, internet yi dañoo xaw a curieux un peu faaw nga ñuy leeralal tuuti lan lay waaj. waaw Badou moo ngi waaj single mooy laaj mooy waaj single bu am doole xam naa ne fan yii rek yàggatul tuuti rek ñu xaar mu ñëw waaw. Euh, bu weesoo loolu ak Pape Badara est-ce que mën nga ñu cee leeralal tuuti lan moo tax nga jékki-jékki rek nekk ménagère am fan la jógee. waaw Badou da di sama waay du waayu démb ak bër gi waaye da sama lépp mu xam ni man ci showbiz bi dama ci yëngatu xamee ni daa bëgg du yëngatu ci mu ñëw seet si ma proposé ma ma nangul ko ko aussi loolu kase moo tax liggéey bi ma am moo tax man ak moom ñu mën a liggéey ni mu bëgg moom laa bëgg waaw ah, léegi Aba Gawlo nag lan moo nekkoon say tànk fii nga xam ni moom la concert bi muy organisé tey Aba Gawlo laa wax euh, seen relation bam tax nga jaral la mu jaral nga ñëw fii nii heure bii waaw Aba Gawlo sama lépp la damaa gis rek mu gël ndax su ma moom mi doog a ñëw na proposé ma ménagère man ko man maay sa lépp wax dëgg wutal ménagère wutal lépp man maay sa lépp lu def. du def dara te ñëwul ba ci man ñi ma lii moo tax mu ñëw invité Badi Badara bien avant ñi ma lu mu jàpp na wa bàyyi ibis lañ jógee ñëw fii buñ waroon a dem feneen tamit dinañ ba lépp ñëw fii ndax Aba Diaw ku baax la ku yaru la ku bëgg nit ñi baax la ku yaru la loolu moom ñëpp xam nañ ko ndax te doomu Tiwaawan daa war baax dafay yaru Euh, sa kàddu gu mujj lan ngay wax euh, internet yi ak euh, lan ngay conseiller Aba Gawlo ak artistes nekk ci waawoon sa kàddu gu mujj ñu bàyyi la nga wax sa gu mujj nga wax lan ngay wax Aba Gawlo ak artistes yi nga xam ne ñu ngi ci waawoon waaw ñu gën a góor góor lu gën a liggéey aussi parce que nit woote ñu wuy si la yomb nan gën a liggéey génn Tiwaawan bu jaree ñu dem feneen nan liggéey defar baat yi gën a yëngatu ci showbiz bi bañ a bàyyi ba soirée am ñu doog a ñëw nan dem liggéey ñëw parce que Tivaouane soo bis bi moo ngi leen di intéressé nan ci bu baax ba pare ñi mën a jàppale booy nan leen jàppale bu baax a baax man moom dama part personnel maa ngi ci waa étoile bi. yaa ko wax. waaw maa ngi ci waa. ah li wax moom. non maa ngi ci. ah kon baax na ñu bàyyi la nga demaat toogaat sa place suivre. nii lay demee nii lay demee ak Étoile TV Sénégal nee naa leen fii image bi ngeen mënti bëgg rek fi ngeen koy amee ñu dalal suñu beneen invité sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. naa nga nuyoog mbokki internet bi seetaan à travers Étoile euh, waaw di kontaan rek nag ndaxte yaakaar naa ni bés bi moom bés boo xamante si la bés bu rëy la ci ñun tax na yéen Étoile TV yi tamit ñi nga xamante si ay doomu Tivaouane ngeen. di leen ñaanal yàlla tamit yàlla gën ko yëkkati ful ko yóbbu ko fi nga xamante si nii sut na seen jot waaw kawe na seen jot macha allah. lan ngay wax artistes yi nga xam ne ñu ngi fii nii Tivaouane di yëngu ci malu euh, musique bi ak showbiz bi lan nga leen di conseiller. ah ok artistes yi moom di conseiller booy ñu gën a gëm seen bopp parce bi yaatu na ku ci nekk mën nga bay sa waar. bañ a dugg ci loo xamante si nii rek sa yoon nekku ci nekk li nga xamante si mooy sa liggéey nekk si sa bopp parce que xam ñi la bëgg xam ñi nga xamante si nii tamit am na leneen lu bëgg ndax nit moom saa su nekk rek boo nekkee ci dara boo ci bëggee avancé da nga bëgg ko quoi mu nekk ci yow nga mu doon sa gëm-gëm parce que li ma daal mooy ñu gën a gëm loolu gën a xam li nga xamante si moom lañ bëgg waaw macha allah. léegi sa kàddu gu mujj ñu daal lay bàyyi nga daal di rejoindre sa place. waaw ok euh, li may wax nag mooy kontaan naa torop tey ndax bésu Babacar bii nii doon na bés bi nga xamante si bés bu rëy la ci ñun. parce que Babacar dafa doon nit ki nga xamante si nitu ñëpp la bëgg ñëpp tamit teg ci ndaxte dafa ñëw ba Médine bàyyeeku ko ñëpp ñëw ba Médine ni ñu yéen sama bis dama bëgg ngeen teew fa ndaxte. yéen ay borom yi baax ngeen wax ñu lu baax daal moo waral bésam tamit faaw ñu teew ndaxte bés du tuut borom lay tollool macha allah boo ko xoolee nii sax xam ni bés bi dina neex te xam naa ne bu ñëwee mu bëri wàcc. waaw loolu moom dëgg la bés bi neex na ba pare te ñëwagul. waaw gis nga neex na ba tey agseegul mais bu agsee kon xaw ma fu nit ñi jëm. kon nar naa neex xanaa ma bàyyi la nga demaat rejoindre sa place. it well xam ngeen ni suñu émi suñu invité bii nii yaañu na lool ñu laaj ko moom la kan daat koy nuyu mu bàyyi ko mu nuyoo ak internet bu étoile maa ngi lay nuyu maman. maa ngi sant yàlla di leen di sallallahu maa ngi tudd maa leer maanaa baax Babacar wala mi. ah may dégg ñu naan euh, Aba Gawlo sa doom la est-ce que li muy def neex na la. li muy def. mu nekk musique bi yow nan nga ko gisee est-ce que neex na la am nga ci plaisir mu koy def. Aba nit ñi ko tuddee Aboubacar Saddiq mi njëkk gëm suñu maam Rasulullah wa sallam ñu naan Aba Daw neex dama ndax Olof Njaay mi dooyu mbëri jàngil bëri yàgg yàgg ko soxla ñam Babacar dafa doon laala côté bu ne ndax de sama wàllu man baay moom ndaanaan la Modou Mbacké sama baay ndaanaan la nga ànd ak góor ni ma ko jéng yàlla dëggal ma jéngeen sam beneen papa Abdou Khadir Samb baay alaaji Samba jabare maamam bi nijaayam fara gàmmal Alboury kon Babacar war naa woy man ndaanaan laa damay woy ba tey en même temps ma nekk nekk foofu animal kon loolu war naa mën a nekk ñaanal ko rek yàlla teggale amin amin ñaan gi yalla nangu léegi ñu wax eh, lan ngay wax artiste yi nga xam ñu ngi ci tiwaawoon ba pare lan ngay wax artiste yi nga xam ñu ngi ci tiwaawoon sa conseil en tant que maman. artiste li ma leen di wax moy ñu gor gor góorgóorlu benn bokk nay bokk bay di waxtan di sottante ay xalaat ndax bu ñu bennoo rek dañuy dem te xale yu Tiwaawan ni ku nekk ndaanaan nga ku fi nekk artiste nga ku doon nga say maam kon bu ñu leen poussé dañuy dem bu ñu leen puusul dañuy dem kon tubaarkàlla ah xale artiste Tiwaawan yëpp samay doom lañu maay seen yaay maay seen bàjjen ni samay fan bëgg ma te yàlla tax kon maa koy ñaanal daal ah yàlla na aar bi yegg mboolem ku fi ñëw itam dana yàlla ba li ñu bëgg yàlla defal ko ko ma am mbégte daal tubaab kàlla macha lii am na solo lii lu riche la lu noble la parce que nag la gawlo di doroo rek boo déggee gawlo askan wu riche wu raar la nag ndax ñun. ay buur la ñuy àndal ay kilifa diine ay kilifa aada ñu am fu ñu teg lu ñu yóondi lu ñu toggaloo ci waañ lu dem loo maas fañsa la ñuy def yéen way ñii laaj xalaat kooku mooy gawlo mu doon ko fu ne nag ay sàmba jabare ni jaayam la maamam la bu dee wàllu maamam maamam la waaye bu dee man ni jaayam en même Youssou Ndour ñu bokk nañu. Alaaji Ama Njaay bu dee ci man nijaayam la delluwaat ci maamam mu doon ndaanaan piir nag su wayee day dem de. incha allah comme euh, ay fan mu ngi waaj a guddi dañ lay bàyyi nga daal di demaat toogaat sa place xaar sa doom ndax xam naa ne fii tey dafa war a neex. waaw. waaw Asé maa ngi kontaan ci yow. dag ma laaj lu ma neex muy ndaanaan ak aar bi muy lu ma saf dugguma ndax ci lay dox kon tubaarkàlla macha allah ah Aba Gawlo daal doon ndaanaan piir ci ak ci ku ko xool sax xam ni abandaanaan la abandaanaan la loolu moom ñëpp duñ ko amatul werante fii nii si Tiwaawan ñu bàyyi la nga dem toog sa place euh, xam naa ni ñu la fi bëgg a si yi nga xam ni ñu ngi fi euh, xanaa ñu bàyyi leen ñu nuyoo wax ak euh, internet bu Étoile TV maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaa ngi si jàmm maa si jàmm bu baax alhamdulilah. moo waraloon seen teewaay fii nga xam ne moom la Aba Gaw la organisé ba ngay def seen oto si yàmm ji. waaye ñun waa fondation G2D dañu fee ñëw pour dooleel suñu artiste muy Babacar parce que Babacar dafa bokk ci ñun mu nekk nit ku baax nit ku oyof à chaque fois aussi mu ñu won boppam fu ñu tase aussi mu wàcce boppam amaana loolu lañ sekk ak moom ba tax tey jii ñu tew fii ñëw tamit defal ko lii nga xamante ni moom la méritool parce que nit ku ne ak lim la woon te liñ ko defal nii moom rek la méritool loolu moom moo ñu fenn. dëgg la nee nga li ngeen bokk mooy fondation Zest lan mooy fondation. waaw fondation Zest benn kuréel la bu nekk biir Tivaouane muy ay jeunes ay jeunes étudiants ñoom ñoo ko composé ak ay élèves yu nekk fii biir Tivaouane ñu nekk di dox ci social rien que pour le développement de Tivaouane parce que à chaque fois ci la ñuy veiller di xool lan mooy jëmale Tivaouane kanam ñu di teg suñu tànk pour avancement mën a am. rafet na xanaa ma jël gi nekk ci sama beneen côté bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. baaxee boo sa sañse ak ku leen ñëwal. ah yow dañu ñëw jàppale si rek. <laughs> am na doole kan moo leen ñëwal. ah suñu góor bu baax waaw nekk suñu biir suñu mag moo ñu génnee fii waaw ci jour bi rek tey. noo gisee bis bi nga xam ne Aba Gawlo moo ko tëgg tey ngeen ñëw accompagner ko ak seen hôtesse yu yaañ. ah bi mu fi duggee moom sama xel dafa dal. parce que gis na nit ñi ñëw nañu tey pour accompagner Babacar taxaw ko ci bisam bi parce que nit amul leen dul bisam boo ñëwee gunge ko ci donc da koy gën a jàppale daal Aba moom suñu xarit la suñu lépp la mu faaw ñu teew. noo gisee bis bi dafa mel ni dafa nara a ala daw mais te gisaguma Awa. yii ni ma fi gis nii moom tàng na te dara xewagul xam naa bu ñëwee day gën a wàccee fii rek mu gën a xam naa ma bàyyi leen ngeen demaat toogaay defaraat defaraat euh, toogaay yi balaa moo ñëw.

ADL ADL la artiste rappeur. rappeur euh, yow naka métier bi naka rap bi baa mu ngi dox. waaw mi ngi dox bu baax eh, parce que instant bi nii ñu ngi dund ak suñu li ñu bëgg quoi si ngeen comprendre voilà quoi ñoo ngi def rap bi bu baax mais. voilà quoi des na lu bare bare bare yaa ngi gis euh, artistes yi nga xam ne ñu ngi nekk ci waawan ñoom ñëpp ñu ngi commencé di fësal seen bopp yow lan ngay xaar comme di def comme soirée yi ñoom ñuy organisé. non c'est juste juste que dafa am loo xamante ne nii nekkul loo xamante ne dañ koy xëcc léegi ñu ñëw léegi parce que boo nekkee si yoon da nga war a def loo xamante ne nii ngeen da nga def loo xamante ne ñëpp dañ siy teg seen bët ba juste boobu moment bu boo wootee xam nga public yëpp mën la wuy si quoi loolu lañ bëgg moo tax duñ profité affaire yi léegi def ko léegi nii quoi voilà. sa relation ak euh, Aba Gawlo mi nga xam ne moo organisé tey lii nga xam ni yaakaar naa ñëpp dinañ ñëw si kanam. ñëw Aba Gawlo c'est mon frère parce que depuis boo xoolee man ak moom xamante bu yàgg la depuis temps booy la woon ba tey après moom mu nekk di def musique man ma nekk di def musique donte bokkul même musique yi ñuy def sax man ak moom c'est juste que xam nga loo xamante ne xamante bu yàgg la quoi et mënuñ ko bañal dara moo tax ñu ñëw teew tey fii nii comme que ñoo ngi tiwaawan di sax xanaa ñu bàyyi la rek nga wax sa kàddu gu mujj ak li ngay wax artistes nga xam ne ñu ngi tiwaawan waaw di leen wax ñu gën a liggéey xam nga parce que liggéey bi rek moom mooy fay quoi xam nga ñu dem ci kaw ñëpp si nekk si li nga nekk xam mooy dernier merci beaucoup xanaa ñu bàyyi la rek nga dem rejoindre sa place ndax xam naa ni mbir mi léegi mu commencé. ok merci beaucoup Gaye ak plateau nag dara xam ni Aba Gawlo moo ko organisé suñu beneen invité. amaat nañ dañ koy bàyyi mu nuyoo rek euh, wax moom la kan présenté ñu boppam maa ngi lay nuyu. ñu lay fay. Nous avons fait nuyu bu baax baax di am metti ak contentement ci activité bi tay maa ngi Ndaga Sam nek président fondation Zest di jeune engagé au service de Nous ñeu aussi soutenir suñu artiste damay dégg ñu naan fondation Zest fondation Zest lan moy fondation Zest donc euh, fondation Zest c'est-à-dire que nous trouvons bi dafa dafa dafa wuyu borom muy jeune engagé au service de Tivaouane

par rapport aussi yi par rapport aussi tamit ñu ngi di ñu ñu service servir suñu dëkk parce que ñun Tivaouane lañ dëkk ay doomi Tivaouane lañ te bu ñu génnee dañuy jox suñu cër bu ñu yàllool muy Tivaouane te moo war a tamit ñun bu ñu ñëwee suñu dëkk war nañ fee mën a teg ay activités yoo xamante ne dina méngoo dëkk bi te yaakaar naa ni tamit aussi bu ko kilifa yi déggee dañ ci am dañ ci am contentement bu baax a baax a baax yaakaar naa loolu moom leer na xanaa ñu laaj la rek euh, seen relation yéen ak yéen waa fondation bi ak euh, Aba Gawlo ba tax ngeen ñëw fii ok loolu dinaa sawar loolu pour tontu si parce que Aba dafa doon nit ku baax nit ku simple bokk si fondation bi aussi di si liggéey liggéey bu am solo te fondation bi dañuy faral parfois bu fi nit nekkee ak lu mu mënti doon lu mu mënti yëngu ñun dañuy pare pour jàppale ko soutenir ko moo waral. man yenn organisation yi xam naa ni bariwul sax ñu ma ciy gis waaye tamit dafay doon jàmbaar jàmbaar ci fondation bi te wax dëgg yàlla doon nit ku baax di organiser tamit ni président dama bëgg organiser complexe Al Maktoum ma ne ko incha allah rabbi bu neexee yàlla dinaa pare pour def sama kéemtalaay kattan lu ma mën ma def ko ci te dinaa la jàppale te en même temps aussi mu doog doomi Tivaouane dinaa si un appel solennel pour ñu jàppale ko te xam ne tamit ëllëg ndaanaan yi nga xamante ni si ñoom la ñuy dégg ñoom incha allah rabbi moom foofu la ñu bëgg moom mu yegg fa ci kàttanu yàlla incha allah. léegi lan ngay wax artistes yi nga xam ne ñu ngi fii nii Tivaouane ba pare parfois dañuy am complexe bu wane seen bopp lan nga leen di wax. donc at fii Tivaouane parce que ndaanaan yëpp fi lañ jaar ndaxte yaakaar naa ni il fallait ñu gën a gëm seen bopp rek te ni. doomi Tiwaawan du des gannaaw fu ñu mënti dem rek yaakaar naa ne ñoom ñooy jiitu te yaakaar naa ne loolu bu dee am rek je je je pense que ni lu ñu song lu ne mën nañ koo daan donc yaakaar naa ne ay ndaanaan mi fi te gis naa ay ay artistes yu mel ay ay kii Pape Pape Pape Samb te moom ndaanaan la bu yàggu dara la organiser fii. donc ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñoo xamante ñu ñu ñëw nañ si salle bi man leen nañ gëm seen bopp rek te xam ne xëcc bu dàqul dëkk te wàññi boo gis si benn bu ñu ci nekkee rek je pense que ni réussite totale dina am à pour cent. bu ñu ci nekkee dinañ ci gis suñu bopp à 100 pour cent ñu bàyyi la nga joxe sa kàddu gu mujj ñu bañ laa tee fii ndax dafa mel ni organisation bi yëpp seen loxo lay jaar sa kàddu gu mujj. donc ñu sant leen rek ci liggéey bu am solo bi ngeen def parce que Étoile TV moom je pense que suñu mbir la te yàgg nañ koo dégg fu nekk wax dëgg yàlla te ñaan seen bi. moo gën a jëm kanam ca kaw ca kanam incha allah bi ngay def macha allah am na solo trop trop. merci beaucoup ñu bañ laa téye daan lay bàyyi.